njukkal bi ñu defal ñun ñëpp du ma wax ci man kese ndax mën naa wax si artistes yi ñu ko defal ndax xam naa ni am na artistes yu bëri yu nekk Sénégal man personnellement mën naa wax ni yokk na ma te dina yokk dina gis naa ne xam naa ne dina yokk lu bëri ci man dina ma yokk jom dina ma yokk engagement surtout si engagement bi ma am par rapport man réalisation laay def ay film laay liggéey ak ci dessin dessinateur